ci Sénégal daanaka bari woon na ay pillage tey jii ñu ngi nag fii ci Kër Massar fii ñu fekk fii benn ndaw sax butigam bokk na tey jii ci ñu daj dajji ñu doon laajte rek sa tur señ bi. waaw man euh, Modou Faye lañ maa waaw maa ngi dëkk fii Kër Massar fii la sama boutique nekk voilà donc mu bokk ci boutique yi ñu sakaase donc nekk lu ñu mettit lu trop voilà donc euh, waaw. bëggoon xam euh, tey jii euh, loolee bi mu doon am fan la la fekk ak euh, nan nga yëgee rek lu ni mel. waaw bi muy am mi ngi ma fekk sama kër donc aw ma ci lu dul dañ ma woo rek ne ma yaa moom boutique bi nekk fii mel leen waa ñu ne ma dajji nañ ko dèjà yóbbu nañu bagage yi fi nekk yëpp ma leen ah ci la déplacé wu ma ñëw d'accord bi may ñëw ma fekk gars yi dajji boutique bi yóbbu bagage yi fi nekkoon yëpp tout ça. li mu ci gën a métti mooy dañoo toj verre yi fi nekkoon yëpp yàq place bi yëpp te loolu mën na ñàkk voilà. gis nañ ni sax placard yi jamono ji dañoo vidd mënoon neen xam yan xeetu matériel moo fi nekkoon. waaw fii nii ay téléphone fi nekkoon ay yu nekk ci ay seeni boite donc ay sele ñoo fi nekkoon fii nii l'autre ay venant ñoo fi nekkoon aussi ay venant voilà. suñ ko doon xayma mën neen xam euh, ci euh, ñaata lay toll ci koppar. waaw bu ñu à peu près li fi nekkoon ci ay téléphone donc war na mat valeur vingt millions donc voilà ak ak accessoires yi ñu fekkoon ci fële na la yóbbu nañu accessoires yi fi am njëriñ yëpp ak téléphone yi waaw. seen naa fi sax ab vidéo de surveillance euh, tey jii vidéo est-ce que période bi mu mbir yi doon am vidéo yi euh, am na image yi nga xamante ni jot ngeen ci euh, jot na ko filmer waaw mi ngi doon filmer mais ñoom avant tout dañoo yàq caméra yi. donc caméra yi doon fonctionné yëpp dañ leen a dañ leen a yàq euh, en même temps disque bi sax dañ ko yóbbaale xam nga ne ñooñu dañoo jóg pour sàcc donc ñooñu jóguñu pour manifester wu euh, bu dul euh, caméra yi nit ñi doon jël fii nii ci biti yooyu rek laa ci jot a am donc voilà yooyu lañ mën a am ci ay image ci ñoom. gannaaw lu ni mel lan lan ak lan nga def ci démarche. waa démarche léegi dem nañ kii déposé nañ suñu plainte contre X. Euh, def nañ dem nañ gendarmerie def de position yëpp et tout ça yónnee nañ leen information yi soxla yëpp def nañ constat bi def nañ lépp lu ñu war daal li ci des ñu teg ko ci loxo yàlla. place su ma seetloo rek mel na ni sax lu bees la fi. waaw lu bees la fi waaw donc defu fi sax deux mois voilà defu fi deux mois voilà mais nag. nan nga def en tant que jeune ngir taxawal bi les places. waaw ah góorgóorlu rek voilà donc affaire yi moom yombul. voilà donc taxawal lu mel nii du lu yomb voilà donc dañuy sant yàlla bu baax ñun ñoo ko liggéeyoon aussi ñun ñoo koy liggéeyaat voilà euh, ndaw moom bu nekkee ci liggéey euh, euh, di def lépp lum mu man donc lu ko ci arrivé rek day xam ne sa dogalu yàlla la lu waroon am la donc mënuñ ci dara dañuy sant yàlla rek voilà di góorgóorlu lépp lu ñu mën rek defaat ko. ñu def jëf yu ñaaw tamit daanaka war ngeen xaar dara ci ñoom. waaw. Euh, ñu ngi def lépp lu ñu man pour pour pour jot ci ñoom mais nag ñu ngi sant yàlla voilà di ñaan yàlla rek euh, mu niital ma leen voilà ndaxte lii moom nekk na lu jëf ju ñaaw joo xamante ne si kii uniquement dañoo ñëwoon pour toroxal la donc ngay liggéey ngay liggéey toutes ces années ñu xëy un jour rek yàq ko ni ci nii dafa ñaaw dafa ñaaw trop mais nag voilà yàlla yàlla mi ngi gis lépp donc euh, dañuy sant yàlla bu baax. mbir mel na ni rek affecté ne la. waaw waaw metti na ma trop nag moom mais. dañuy sant yàlla. noo nooy def rek ba mën a supporter lu ni mel. ah dañuy sant rek parce que àdduna moom loo gis lu ne euh, am na koo tane donc am na ci ñoo xamante ne si tey jii ñu ngi ci ñàkk nañ ci seen bakkan am na ci ñoo xamante ne si am nañ ci ay gaañu gaañu yoo xamante ne si amatuñ ci seen bopp yaakaar donc ka ñun ñu ngi koy toog di ko di ko di ko nettali rek donc dañuy sant yàlla bu baax ndax euh, fii réew mi toll la donc ku ne rek am na ci. lu la metti donc ñuy masawu bu baax ñi nga xamante ne si seen i mbokk dañ cee gaañu ñàkk ci seen bakkan donc ñu leen di masawu bu baax voilà donc euh, sant yàlla rek voilà donc ñun dañuy sant yàlla. ci yu ñu génn sax gouvernement bu Sénégal daal na joxe xibaar ni dina jàppale indemniser képp ki nga xamante ni euh, loru nga ci yile manifestation euh, loolee ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am mooy. dañuy toog di ko xaar rek ndax euh, ñun jeunesse bi nga xamante ne si muy jeunesse Sénégal soxla nañu ndimbal soxla nañ ko voilà muy man di sama moroom donc li nu mel bu amee dañuy tàllal loxo lépp lu ñu mën a jàppalee rek ci ci aide ñu koy xaar voilà donc ñun ay ndaw lañ di liggéey xaar ñu daray état donc dañuy def le tout pour sunu pour sunu pour sunu avant pour sunu avenir donc euh, xaar ñu dara ci état daal donc waaye lu ñu jàppale aussi dañuy jël. ndaw yu bëri dañuy génn euh, ci réew mi daal di dem bitim réew ngir euh, am yaakaar ni rek mën neen fa jëlee dara yenn da ngeen préféré toog ci dëkk bi. waaw ñun dañuy préféré toog fii ndax jàpp nañu ne Sénégal lépp lu ñu mën a amee ci ci beneen réew war nañ ko mën a am fii suñu réew. donc bu ñu jëloon intention pour génn réew mi pour liggéey feneen am nañ opportunité bi donc dañu dañu dañu dañu dañu jël choix ne fii lañ mën a réussir lépp lu ñu mën a am ci beneen réew fii war nañ ko fi mën a am. voilà donc ñun ñi euh, euh, dañ ñoo war a jàppale xam nga lu ndox ñu war ñoo jàppale ndax ñun ñooy ndaw réew mi te ñun ñooy avantage réew mi donc euh, liñ koy ñaan maanaam mooy ñu gën ñoo teg loxo lépp lu ñu teg loxo rek doyul ndax ñun ñooy njariñu réew mi voilà donc voilà. ci wàllu woowu sax gis na ni ki jamono ji jàmm daal dina dellu siwaat fii ci réewum Sénégal. Euh, soo doon lancer rek message ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite waaye tamit euh, ñi waral lu ni mel euh, ban message lay doon. waaw gis nañ ne réew mi am nag dal tuuti donc ñuy sant ñuy sant yàlla bu baax ci loolu ñuy wax ne que yéen ñi nekk ci bopp bi ñu leen di ñaan benn affaire maanaam réew aw ay xaju fi donc surtout suñu réew mi voilà donc ñuy ñaan lu mel nii na fi gëj moom bu fi mënul ñàkk sax na fi gëj voilà donc ñu koy sant yàlla bu baax ak dal gi mu dal nii donc da jàmm ci la lépp xaj ku amul jàmm doo nekk ci jàmm voilà donc euh, réew mi actuellement nii fi mu nekk nii lii lii euh, àttu nañu ko voilà donc voilà ñuy sant yàlla bu baax aussi voilà di ñaan euh, ñoom ñi nga xamante ni si ñoom ñoo yor réew mi lim ñu tane ci ci ci ci ci ci sécurité voilà ci ci ci ci jàmm doyul voilà ñu koy ñuy ñuy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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps